bokku internet du ñu bàyyi xel fii ci Feeling Dakar dalal ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi ñu tàmbalee ko ak discours de la nation bi nga xamante ni président de la république daal di woon na ko amal ni ki démb ba tax na daal moom président de la république lu mu daal di wax rek mooy l'heure est grave na mesure yi nga xam te ni président de la république daal dina koy jël rek bokk na ci état d'urgence bi nga xam te daal dina koy euh, déclarer sur euh, l'étendue du territoire euh, ba tax na tax 1571 personnes contacts dinañ leen daal di confiner ci li nga xam te ni moom moo di hôtel yi dinañu instaurer benn couvre-feu bu 8 si ngoon jotee jàpp 6 heures du matin dinañu tere li nga xam te ni moom moo di déplacement interurbain yi dépôt d'un projet de loi pour gouvernée par ordonnance ak li nga xamante ni moom moo di création d'un fonds Covid 19 boo xamante ni euh, buñ ko xaymawee toll na ci 1000 milliards ngir euh, li nga xamante ni moom moo di effet bu crise bi 50 milliards dinañ ko mobiliser euh, ngir assister li nga xamante ni moom moo di famille yi en denrée alimentaire benn remise partielle boo xamante ne ni dinañ ko jëmale ci dette fiscale bi ci montant wu 200 milliards soutenir aussi li nga xamante ni moom moo di secteur bi di hôtellerie transport aérien tourisme ak culture ak li nga xam te ni moom moo di euh, presse bi tax na sax ñu ngi xaaral di benn déclaration bu ministre de l'intérieur wala def euh, fii ak ay waxtu lu ci mënti am rek euh, dinañ ci dellu ci suñu ay yeneeni xibaar ba tey ñu wëyal ci lu ñeel covid 19 boobule sax mun Mountakha daal dina jël en charge patient bi nga xamante ni ni daal dinañ koy faj fële ca Touba ku patient boobule sax ñu fàttali ren rek moom moo daal di woon a dugal jàngoro ji foofu le ca Touba loolee daal dina koy jël en charge moom ak famille wam euh, daal di leen jox lu toll ci tonnu ceeb ak li nga xam te ni moom moo di 200 000 francs CFA. opposition bi euh, dinañ leen euh, recevoir fële ca palais ni tey ci talaata bi euh, président de la république nag dina recevoir li nga xamante ni moo di responsable opposition bi ngir ñu waxtaan ci li nga xamante ni moom moo di situation bu dëkk bi ba tax na nag ki nga xamante ni moom moo di Idrissa Seck Malick Gakou Pape Diop Khalifa Sall Ousmane Sonko Doudou Wade Tafsir Thioye ak Cheikh Bamba Dièye nag daal nañu confirmer seen présence ci boobu les rencontre traque de Modou Modou euh, ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo di ay Modou Modou yi nga xamante ni dañoo ñibbisi woon euh, par voie terrestre nga xamante ni euh, signalé wuñu woon benn yoon nag ca Kaolack tamit ñoom immigré yooyu noonu toll lañ ci 77 ba tax na tamit autorité sanitaire yi ñu ngi leen di wër le président de la république nag daal dina jël dogalu fay li nga xamante ni moom moo di pension de retraite yi ni ki tey ci talaata bi jeexalee ko ak Air France nga xamante ni daal dina euh, décider mettre en place ñaari vol yoo xamante ni euh, benn bi ni ki tey lay euh, décoller benn ba ca des ni ki suba ci àllarba bi loolu rek ngir permettre ressortissants français yi nga xamante ni dañoo daal di bloqué fii ci Sénégal ngir ñu mën a dellu si seen dëkk mbokku internet yi cant ak ngërëm ñeen leen li lañ leen andiloon ci ay xibaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig dajee ëllëg ak jàmm ci suñu yeneen xibaar